الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم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 Moi, je représentant du Jamaat Islamique Ahmadiyya dans trois régions Tchess, Fatigue, Djurbel. Et Alhamdulillah, c'est notre travail, c'est le premier travail, c'est l'enseignement de l'islam. C'est ça que nous allons traduire dans le Saint-Coran en différentes langues pour que les gens ils vont comprendre le réel et pur islam. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mené. C'est ça que nous obéit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, première chose, c'est que le prophète aide les gens, nous aide les gens. Le prophète, il est sentir le douleur de les gens, nous sent le douleur de les gens, nous part au village, nous fait pour eux le puits, le masque et propos de santé. Trois domaines nous occupent beaucoup. Pour que سک پروفیت فلف کے نفی صلی مم شوز پس کے ری ال اسلام سیسا سکھ پرفیت صلی اللہ علیہ وسلم الف پس کے لوسن قرآنہ دی لقات کانہ لقوم فی رسول اللہ عسوۃ الحسن کہ پرو سے ماڈل سہ پرفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈونک پرنو سل و پرفیت صلی اللہ علیہ وسلم ہو و خاتم النبی جین C'est lui qui a amené dernière sharia. Et lui, il est un prophète dernier avec le sharia. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a amené le Saint-Coran, et lui descendit le Saint-Coran. Islam, là, c'est le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a fait. Et éducation et loi, pour nous, c'est le Saint-Coran. C'est des choses qu'il faut appliquer dans votre vie پی ووتر وی سرا کوریکٹ بس کنودی کے اسلام دو ناچور کنودی اسلام داچر صفدیر کو میں دیزا دون اے میں قرآن دی اسلام دی کما وجت بتر میں دیے وزا دون دے ذیے قرآن اے پروفیسر اللہ کے کما وجت بطر ذیے ڈونک سیسا کے سی ایسانسیل سیسا لباس <clears throat> جماعت اسلام کا حمدیہ لامور پورتوس لاہن پور پرسن اب ایک ست باز کی التراوائی دامون دانتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ مو فریر عمر جب علوہ وزاد اسپلیکے تو یوے دونے مو بار اللہ مسیو استاز عمر جب اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم bismillahi rahmaani rahim euh, sëñ bi maa ngi lay fay di la nuyu di la sant di la gërëm di am mbégte pour sa invité bi nga xam ne invité nga ñu di kontaan aussi ci laajte bi nga xam ne laaj nga ma ko en tant que ndaw boo xam ne ndaw islam la euh, tudd Oustaz Oumar Diop di liggéey ci jamaat islamique ahmadiya nekk fii au niveau Mbour commune kon soo ma laajee ci mbiru jamaat islamique ahmadiya dama ci am mbegte jamaat islamique ahmadiya nag kuréel la boo xam ne ci islaam lay dox nekkul kuréel boo xam ne bu yees la waaye ñoom ay jullit lañ comme jullit yépp te itam gëm nañu ne yàlla ci lu wër te duñ ko bokkaale ak dara te gëm nañu itam Muhammadu Mustafa sallallahu alayhi wa te gëm nañu mboolem yonent boo xam ne suñu borom bi subhaanahu wa na ko ci kaw suuf moom alquran moom mooy téereem Muhammadu Mustafa sallallahu alayhi wa moom mooy yonenteem kon euh, lépp li nga xam ne islaam digle na ko mu nekk ci ponk ngëm loolu gëm nañ ko te dañ dañ koy jëfe lépp loo xam ne aussi mooy ponk islaam loolu itam dañ koy def dañuy julli dañuy aji makka dañuy joxe azaka lépp li nga xam ne daal islaam teral na ko alquran teral na ko loolu dañ koy def amaa nag euh, ñun dañoo gëm ne kooku nga xam ne yent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ci junni at ak lu teg bi passé eh, ci mille 1400 ans bu paase yent bi sallallahu salaam wa def ñoo diggoon ne bu ñu demee ba ci mujjanteelu jamono imam Mahdi alayhi salatu wasalaam dina ñëw kooku bu ñëwee moom mooy yeesalaat diine islaam moom mooy indiwaat jàmm moom mooy boolewaat jullit yi ñu nekk benn kon ñun en tant que ahmadiya dañoo gëm ne Mirza Ghulam Ahmad alayhi salaam bi nga xam ne mu ngi juddoo ci Qadian ci 1835 dañoo gëm ne Mirza Ghulam boobu dafa woote ne moom mooy Mahdiw te itam moom mooy le Messie promis moom mooy Isa mi nga xam ne mu ñu ngi koy xaar mu ñëw kooku nag moom la ñu gëm moom moo sos jamaat islamique ahmadiya mu ngi sos jamaat islamique ahmadiya ci 1889 ci la woote ne moom mooy Mahdiw te en même temps moom mooy Isa kon jamaat islamique ahmadiya boobu Mirza Ghulam Ahmad Qadiani boobu moom moo ko fondé ci jamaat boobu nag actuellement ñu ngi ci cinquième xalif kooku génn na àdduna depuis 1908 et actuellement ñu ngi ci cinquième xalif boo xam ne mu ngi siège fi nga xam ne moom mooy Royaume-Uni di Angleterre di Hazrat Mirza Masrour Ahmad ayadullahu taala bi nasri al aziz moom mu ngi juddu 1950 euh, mu ngi nekk xalif euh, avril 2003 euh, kooku moom moo nekk ki nga xam ne moom mooy représenté jamaat islamique ahmadiya ci àdduna bi yëpp alhamdulilah jamaat islamique ahmadiya jamono bi nga xam ne imam Mahdi mu ngi koy fonde ci dëkk bi nga xam ne ñu ngi koy wax Qadian ci dëkk bu tuuti ci Inde amuloon sax place yoon bi nga xam ne nit mën na faa jaar tey jamaat boobu tey yàlla barkeel na ko ba tey ñu ngi ci deux cent dix euh, pays ci àdduna plus de junni million nit ci fukki junni million nit ci euh, nit euh, ci àdduna bi kon loolu sant yàlla la jamaat bi nag dafay dox ci li nga xam ne moom mooy jàmm parce que xalif bi récemment lu muy dox ci àdduna bi moom mooy eh, jàmm ak l'amour ak justice ci àdduna bi loolu la xalif bi di eh, maanaam moom mooy message bi nga xam ne mu ngi koy lancé ci àdduna fépp ci àdduna bi eh, léegi tey jamaat islamique ahmadiya boobu aussi boo demee ci àdduna bi ci réew yi comme ni ñu ko waxee système bi benn la système bi ak pays boo dem ci Afrique wala ci Asie wala ci Europe seen liggéey benn la waaye itam ñoom euh, euh, tey euh, si seen activité ci réew bu nekk xalif ba dafa yónnee benn représentant boo xam ne ñu koy wax comme amir kon fii Sénégal am nañ fi amir boo xam ne mu ngi dakaar mu nekk moom mooy suñu représentant fii ci niveau Euh, raison euh, niveau Sénégal boo xam ne moom mooy représenté xalif bi ginnaaw loolu it comme li leen missionnaire wax léegi ci biir Sénégal ci région bu nekk am nañ missionnaire boo xam ne ay ustaas yoo xam ne ñu ngi ci biir région boobu di jàngale Alquran di jàngale diine islam waaye itam di dimbale li nga xam ne ñoom ñooy néew di doole ñi nga xam ne soxla nañ ndimbal ci côté wër ak ci côté xam-xam. ak ci fan bu nek wala ci côté euh, euh, euh, ñam lek yooyu wala ci côté ndox wala ci côté bu nek rek suñu sété né gox bi soxla na li ñi yelo nañu li lolu dañ koy def kon lor lolu dasi gatal gatal nek na la xamné jamaat islamique ahmada ci rew yépp lolu lay dox waaye nak dañu am bob bop bi nga xamné parce que ci islam dañoo wax ne waatasimu bi hablillahi jamian wala tafaraqu suñu borom subhanahu wa moom moo wax ne nangeen jàpp ci buumu yàlla bi te bu taxalee ko kon buumu yàlla boobu tey moom mooy xilaafa moom mooy xalifa bi nga xam ne mooy présenté euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf waa waaye itam moom mooy nekk ki nga xam ne moom mooy boole nit yi ñu nekk jàmm mu jàngal leen li dëgg-dëgg lan mooy jàngale alquran jàngale alxuraan daal moom mooy la ikra fi diin mooy diine amul forcé mooy nit ki dañuy am cofeel ci nit yi def justice ci nit yi kenn ku ci nekk ñu jox la sa àq ak sa yeleef parce que loolu la ñu diine jàngal loolu moo tax devise jamaat islamique ahmadiya mooy alhubbu li la karahiyata ahadan mooy euh, da bëggu bëgg ñëpp l'amour pour tous te bul bañ kenn loolu moom mooy divise bi nga xam ne jamaat islam ngi ahmadiya mu ngi koy dund ci adduna bi waaye ñun amuñu benn xaar ma yàlla ci bépp benn taarixa wala ci benn diine du chrétianisme ci benn taarixa bi nga xam ne nekk na ci biir réew mi ñun am nañ ay relation yu dëgër cofeel bu dëgër boo xam ne boo seetee ci suñu documentaire yi li ñuy liggéey ci biir réew mi da ngay xam ne am nañu ay relation parce que dañoo gëm ne nit ki ak lépp lu munti gëm da ko war a respecté ci loolu nga respecté ko ci ngëmam waaye itam nga buggal ko li nga buggal sa bopp loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ñu jàngal euh, kon loolu moo tax ne tey ki nga xam ne moom moo sos jamaat islamique ahmadiyya bañ na ko boobu mu ne ci jamono ju ñu toll jihad ci léppi wala ci arme amul sens ci islam waaye jihad bi am sens tey moom intellectuel bind xam-xam nit yi mun koo jëriñoo waaye itam bëggante jihad ci sa bakkan waaye itam jihaad ci jàmm jihaad ci justice loolu daal moom moo ñu mun a tey jamale islam kanam waaye nekkul ci xiiro ak ŋaayoo kon ñun daal eh, si gatal am nañu jàmm ak mbooleem nit ak ku mu munti doon ak loo munti gëm ñun dañ lay présenté suñuy agrément si alquran ak sunna su la doyee ñu ànd ak yow liggéey waaye su soo àndul ak ñun itam teew ñu dund ak yow dund boo xam ne dund jàmm la dund la boo xam ne moom la ñu yont bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal Euh, jamaat islamique ahmadiya mu ngi bugg a yàgg fii nga xam ne moom mooy Sénégal parce que depuis 1962 euh, côté yooyu la dugg fii mais jamono boobu jamaat islamique ahmadiya nekk nañ fi Sénégal mais si année 2012 bi ci la ñu am suñu récépissé boo xam ne euh, nguur gi reconnaître na suñu mouvement jamaat islamique ahmadiya waaye depuis boobu ba léegi jamaat islamique ahmadiya mu ngi ci biir Sénégal di jàngale islam ci biir gox yi comme ni ma la ko waxee woon ci njëlbeen bi waaye itam dëgg la Sénégal réew la boo xam ne bari na ay tariqa mais boo seetee ñooñu yépp ñoo bokk lu ñuy woote ndaxte lépp ñu ñoo bokk benn yàlla bi ñun ñoo bokk benn yont bi kon même ñi nga xam ne sax ñoom ñooy suñu mbokku chrétiens yi ñoom ñoo bokk gëm-gëm xanaa kenn ku ci nekk danga nga am nooy gisee loolu nag kenn mënu wax ne si islaam sama gis-gis moo gën a baax gis-gisu keneen déedéet mais ne mun ngeen dem ci agrément ci al alquran ak sunna comme eh, suñu borom subhanahu wa taala moo ñu wax ne wa iza tanasatum bi shay'in faraduhu ilallahi wa rasulihi mu ne su fekkee ne da ngeen werante ci dara na ngeen référé ci yont bi ak yàlla ak yàlla ci yàlla ak yonent bi kon yàlla ak yonent bi tey moom mooy alquran moom mooy waxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñun amuñu benn xaar ma yàlla ak benn taariqa boo xam ne nekk na ci biir Sénégal même bu nekkoo ci biir Sénégal tey boo demee Europe fa nga xam ne sax ay jullit nekkuñu fa jamaat bi dafa am ay relation yoo xam ne yu dëgër la du ci Amérique tey Angleterre bi nga xam ne fa la ñu siège tey ñoom ñoo nekk ñoo xam ne gën a contre islam jamaat islamique ahmadiyya def na fa lu plus de cent mosquées yoo xam ne dañuy pratiquer seen diine comme nu mu ware donte nag si yeneen réewu jullit yi am na foo xam ne ñu ngi sonal ahmadiyya yi di leen di persécuter lu mel ni yeneen réew yi nga xam ne ay Pakistan ak yeneen réew yi mais loolu tréwut ñun dañuy woote la l'amour dañu woote justice dañuy woote kenn ku ci nekk ñu joxla la sa àq sa yelleef foo mun ti nekk ñu may la liberté nga mën a jaamu li nga xam ne moom yow loolu nga gëm kon fii Sénégal euh, li nga xam ne ci lañu ñu attewoo loolu la ñu attewoo mais ñun ñoom ci seen bopp gëm nañu ne Mahdi dina ñëw amul benn jullit ci biir àdduna boo xam ne tey gëmul ne imam Mahdi dina ñëw parce que yonent bi sallallahu alayhi waxoon na ko ñëw na nag ak ñëwagul loolu moomuñ mbir mi mais ñun nag dañoo gëm ne ñëw na xëy ñeneen yi dañoo gëm ne ñëwagul ba tey ñu ngi xaar mais ñun ci ginnaaw bu ñu defee suñu recherche gis ay preuve yu leer ne ah kii de lu mu waxoon mengoon ak li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci jamono ak si hadis ci ak si ay mandarga kon ñun itam mandarga yooyu ak jamono boobu ñun doy nañu ba ñu gis ni ah Mirza Ghulam Ahmed de moom mooy imam Mahdi itam moom mooy Isa bi nga xam ne moom la ñëpp di xaar retouram kon loolu itam terewut dañuy dem di waxtaan ak nit yi di leen bokk ak ñoom waxtaan eh, am na ñoo xam ne dañuy nangul waaye am na ñoo xam ne nanguluñu waaye terewut ñu seq jàmm suñu diggante kon euh, tarixa yi nekk ci biir Sénégal moom ñun am nañu ay relation yu baax parce que Touba bu wootee dañuy dem suñu amir bi dafay dem Tiwaawoon noonu yeneen même christianisme bi noonu kon ñun moom amuñu benn problème ak ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci biir réew mi doit soit ñu nekk ajulit wala ñu nekk nekk ajulit même ci àdduna bi yëpp jamaat islamique ahmadiyya moom amul benn problème si dund ak nit yi parce que ñun ñii di wax ak yéen man mi di wax ak yow avant ahmadia amna lima li ma nekkoon ba tey samay para amna ci ñoo xam ne ay mourid lañ mais terewul nu ñu dundee ci biir kër gi ak ci biir dëkk bi dafa rafet kon dama yaakaar ne islam moom eh, war nañ mën a dund parce que yonent bi salallahu alayhi wa sallam bu ñu jàngee histoire am jamono bu muy door a ñëw fu mu njëkk a gaddaay ak sahabaam yi mooy Éthiopia foofu nga xam ne benn julit nekku fa woon en tout cas dañu am ak relation ak chrétien yi ne ya fa nekkoon bu ñu jógee Makka dem Medina julit nekk bu woon Medina mais terewut dañu am relation ba tey Medina nekk réewu jullit kon ñu nag en tant que jullit ak jullit ñoo xam ne benn yàlla bi lañ gëm benn yont bi lañ gëm kon dama yaakaar ne ñu am benn relation boo xam ne euh, jàmm la relation boo xam ne dimbalante la dama yaakaar ne loolu def ñu yokk rek waaye du ñu wàññ kon jamaat islamique ahmadiyya loolu lay dundu ci biir réew mi ak ci biti réew mi Les suñu teluwaay ci bir réew mi xamna warna euh, wala membres ci euh, euh, wala sax xamna japatuma exact bi exactement incha dina la papier bi suñu défé xayma bi ci bir réew mi xamna parce que war population Sénégal. xam nga livre la crise mondiale. la semaine vers la paix euh, suñu calife bi cinquième calife Mirza Masrour Ahmad moom moo ko bind 2012 bu mu defee tournéem international dem Amérique dem Canada dem Allemagne ci la bind ay lettres ci biir lettre boobu dafa bind président yi bind roi yi li mel ni président Amérique li mel ni président arabu saoudite euh, royaume arabu saoudite partout ñi nga xam ne ñoom ñoo jiitu adduna bi xalif bi def leen bind lettre xamal leen ne ñoom ñoom ñooy responsabilité adduna bi ndax ñoom la yalla jiital ci seeni réew suñu waxee nit yi di leen déglu kon toujours dafay lancer message boo xam ne toujours nit yi dañoo war a utiliser li nga xam ne moom mooy justice nit yi dañoo war a utiliser li nga xam ne moom mooy l'amour nañu respecter nit ñi ci seen ngëm nañu respecté nit yi bu ñu xeebante waaye itam nañu doxal jamm kene ku ci se ñu jox la sa ak sa yelif parce que nit ki su fekké né da nga dem ba bu ko xagn axam bu ko note toroxal ko bu rek problème mu na am kon bo gisé xalé bi toujours fay waxtaan ak ñom nañu def attention parce que li nga xamné ne momo indi won guerre mom moy lolu moy di jema note nit ñi di len xañ seen ak ak seen yéleef wala ñàkk a utiliser li nga xam ne moom mooy justice ñu seet rek ñi nga xam ne ñoom ñoo am ñoom daal la ñuy favoriser ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñu néew di doole ñu leen di génn a suufeel loolu toujours xalif bi def ci def ay discours di ci def ay serment ay xutba yoo xam ne da koy def toujours di ko lancer parce que xalif bi toujours message am nekkul ne rek Ahmada ko la concerné mais adduna bi yëpp la concerné parce que discours bu muy def adduna bi yëpp la koy lancé kon loolu moom moo taxoon mu bind livre boobu mu wax ni dinañu bàyyi xel fi nga xam ne foofu fii la adduna bi nekk su delluwul ginnaaw boo moytuwul dina ñu ngi jëm si fitna fitna boobu nag mun nañ nekk dem ci côté bu nekk tey gis nañ li fi xew mu nekk mbaas mi loolu itam beneen xeetu guerre mondiale la parce que partout ci adduna bi mu ngi am loolu yëpp waxoon na ko mu ne leen guerre bi bu leen yaakaar ne guerre bi dafay nekk ay bomb rek mun na nekk yeneen système yoo xam ne sax du nekk bomb ak ay ay ay arme mais il faut ñu dellu ginnaaw mooy utiliser li nga xam ne moom mooy justice surtout dirigeants yi dirigeants yi nga xam ne euh, dirigeant politique lañ ak dirigeants yi nga xam ne dirigeant euh, religieuse lañ kon loolu moom moo tax xalif bi toujours loolu moom mooy message bu ñu moom sax dañ koo tuddee ambassadeur de la paix parce que moom message am yépp loolu la moom mooy boole jullit yi ñu nekk ci jàmm boole nit yi ñu utiliser li nga xam ne moom mooy justice parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ñu jàngal alquranul karim loolu la ñu jàngal kon loolu moom moo tax jamaat islamique ahmadiyya nag ci biir ñàngale boobu dafa firi alquran lu ma 70 langues

kon loolu daal la xalif bi di wax ci àdduna bi eh, pour nit yi mun a nekk benn côté boobu itam jaman bi def ci liggéey parce que ñun suñu objectif mooy dañuy jàngale yor nañ ay daara mais nag dafa nekk ay daara yoo xam ne ay daara modernisé la comme man mi niveau Mbour maa ngi fiy jàngal am naa fi centre presse formation boo xam ne xale yi dama leen di jàngal foofu ci islam boo demee Tamba itam am nañ foofu école boo xam ne franco arabe la waaye itam ci biir daara locale yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir Sénégal aussi euh, li mel ni Tamba wala ci orphelin yi nga xam ne ñoo nekk foofu dañuy jël ay ndimbal di yóbbu daara yi ñoo xam ne bu dee ay yére wala place bi nga xam ne euh, ay lal wala ay matelas yooyu yëpp jamaat bi def koy dimbalee daara yi même orphelin yi aussi loolu jamaat bi daf koy def kon euh, gis naa ne ñun itam am nañ relation bu dëgër ak daara yi nga xam ne ñu fi nekk donte nag defaguñu euh, ay ndimbal yu bëri ci daara yi waaye boo demee ci orphelin yi fu ñuy nekk wala ñi nga xam ne soxla nañ kii nañ euh, defar nañ foofu ay dimbale yu bëri même si koro début corona bi sax am na yu bëri yu ñu distribuer ci li nga xam ne moom mooy ay gel ay saabu ay paan ay jumtuwaay yoo xam ne Eh, réew mi daf koy soxla ci daara ak ci école euh, primaire yi ak lycée yi yooyu yëpp euh, jamaat bi jot na ko fee def ci biir réew mi am naa boo kee rapport bi yëpp mun nañ la koo jox comme sax nga gis li nga xam ne jamaat euh, à travers de l'Humanité Fest jot nañ koo def ci biir réew mi. maa ngi lay sant di la gërëm li nga xam ne moom mooy li may mujjee mooy di xamal Sénégal yi ci réew mi ak ci biti réew mi yëpp ñu xam ne. jamaat islamique ahmadiya kuréel la boo xam ne comme ni ma leen ko waxee ci njëlbeen bi amula kenn benn taariqa wala benn diine xaar ma yàlla l'amour pour tous la pour personne di xam ne nag ah, e, ñu ngi sakku ñaan ci ñépp ci li nga xam ne mooy diine bi jëm kanam waaye itam nit yi mun a am dal ak wër bi nga xam ne moom lañu ñu mun a pratiquer seeni diine Euh, yow itam maa ngi lay sant di la gërëm di sant mbooleem ku nekk ci biir réew mi ak ci biti réew mi di jéglu bu baax a baax nag su fekkee li nga xam ne wax naa ko am na ci yoo xam ne euh, rafetul nga xam ne lu rafet rek laa ci jublu woon xeej ñaa euh, wax mu xaw a métti waaye lépp luñ ci juble woon rek mooy wax li nga xam ne lu jubla waaye lépp luñ ci jub rek ñu xam ne yàlla la waaye lu ci jubale rek ngeen xam ne ci ñun la waaye ñu ngi sant waat ñëpp di gërëm ñëpp eh, yow itam maa lay sant di la gërëm yàlla na la yàlla yokk yokk liggéey bi ba mu nekk télé boo xam ne dafay gën a diviser li nga xam ne moom mooy islam yow yaa xam li nga xam ne moom mooy sa eh, mébét yàlla yàlla mottali mébét boobu ba lii nekk télé boo xam ne àdduna bi yëpp dañ koy seetaan mu gën a avancé comme li nga xam ne